jër ngeen jëf mbokki Wassare Lamb Wassare TV ñoo ngi leen di nuyu fi leen daan nuyoo di leen bégg bu baax a baax di leen wax ne tey yéen ngi fii ci Wassare Lamb yéen fii ci Wassare Lamb ñu waxtaane la nga xamante ni dafa bokk ci làmb xam ne saison bi tëj na waaye daa mel ni saison bi tijji na ndax boobaak léegi saison bi tëj gis nañu ay làmb yu bari xamante ni taxaw na fi ku ci mel ni Ama Baldé Modou ku ci mel ni Gris Bordeaux Balla Gaye 2 ku ci mel ni Reug ah ak Gouye Gui ñu war yéen fii nga xamante ni mooy plage bi ñu ñëw di Parcelles Assainies fas yéene fekk sportif yi nga xamante ne dañuy sport laaj leen ci combat yi taxaw naka lañ ko gisee ak combat yi kan lañ jox favori ak làmb ji naka lay demee sëñ Bas mën nga maa topp ñu dem xooli sportif yi. boobaak léegi gis nañ combat yi nga xamante ne taxaw na fi ñu njëkkee ko ci combat bi nga xamante ne mooy diggante boo Bordeaux ak Balla Gaye loolu làmb la ndax attaquant mooy bëri ak défenseur. kan moo ci attaquant bi défenseur bi. Gris day défendre Balla Gaye day mooy attaquant bi. Mhm. te bu arbitre bi Balla daan ko jël bu kenn du werante foo teg loolu lan moo tax nga ne Balla da koy daan ndax boo xoolee ñoom ñaar bëri woon nañu bii maanaam revanche la foo teg loolu. boobu ba ñuy bëree boobu Balla gay 2 nekk woon ci forme. Mhm. waaye bii dafa pare. Mhm. te du yàgg mu dóor ko mu daanu bu giree xeexee mu ñàkk bu bëree ñàkk. Mhm. waaw waaw na làmb ji ñoom ñaar ku ci daanu mu doy waar. soxna si nuyu naa la. maa lay fay. maa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm. fekk la ci plage bi ngay doxantu. waa gis nga. Uh-huh. ñu bëggoon waxtaan ak yow ci làmb yi nga xamante ni moo fi taxaw ci diggante Balla gay ak Gris noo gisee boobu komba ñoom ñaar man kenn du sama mbër mais xam naa ne Gris Bordeaux moo koy daan. moo koy waaw. noo gisee diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye. ah dafay daan. ngir moom moo mën Balla Balla moom ko mën moom. foo teg loolu. ah dama ko dama xam ne ngir moo ko mën rek. mais ñoom ñaar bëri woon nañ kii di Balla Gaye ci ndam. mais bii day fayu. Ah. waaw noonu la fa kon baadu 1-1 la. 1-1 lay doon. Hmm. Euh, noo ci Balla Gaye ak Gris Bordeaux maa ngi si Balla. Hmm. Balla ko mën fuuf sax. làmb du yomb de. ah mais Balla mën moo ko daa ko bëri de. xam nga ne bëri woon nañ fi ñoom ñaar combat bu métti kenn daanu. Hmm, mais bi yoon day du bokk. bokkul yoon baala dafa pare de. soxna si nuyu la. ça va comment tu vas. yaa ngi ci jàmm. ça va bien. waaw sa dégg ma ne ça va comment tu vas. <laughs> ah merci <laughs> merci beaucoup. ñoo fekk la ci plage bi dafa a ni da ngaa ñëw pour féexlu de. bah oui avec les enfants là. Hmm. voilà dañu xaw a génn del weer tuuti. ñëw ñëw changé air tuuti quoi. voilà ñëw fekk la fi nga toog ñu bëggoon waxtaan ak yow ci combinaison yi nga xamante ne taxaw na ci làmb. Euh, Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux noo gisee boobu combat. bon franchement Balla Gaye moom du sama mbër en fait. Mhm. mais je le préfère à Gris Bordeaux. <laughs> Gris Bordeaux <laughs> ah lu tax moo koy daal moo ko mën de. kan moo mën Gris Bordeaux moo mën. non non Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 mën. waaw ah béy woon nañ mu daan ko de ñu defaat revanche Uh-uh. non Balla Gaye non non moo daanoon. Balla Gaye. Balla Gaye comment ça. moom lañ joxoon moom lañ joxoon victoire. Balla Gaye de ak parce que parce hmm. léegi ñu war a waat ñoom ñaar. moo koy daan rek. Balla Gaye am sax du am sax forfait nii nii da koy daan. <laughs> Gris Bordeaux mer na de ndax Modou Lo da ko oh. mujjee daan. garaawul. da ko supporté rek da kaa yàgg def. kilifa gi maa ngi lay nuyu. waaw ñoo ngi lay fay ñu ngi ziar bu ba ñu fekk la fii ci plage bi nga toog di féexlu. waaw waaw gis nga de. comme que ci été lañ nekk. te mun a ñàkk yàlla dogal ñu génn si confinement beeg couvre-feu yeeg ñu profité ñëw si géej gi jël brise de mer ñu nag gars yi toog waxtaan daal loolu moo ñu fi indi. waaw changer air tuuti. ñu doon ñu bëggoon ñëwaat ci làmb yi nga xamante ni moo taxaw. Hmm. ci ku mel ni diggante Gris Bordeaux Balla Gaye. noo ko gisee. waaw Gris Bordeaux ak Balla Gaye daanaka bu ma ci sànni sama grain de sel dama naan ñoom ñëpp ay champion lañ. Hmm. ndax euh, Gris Bordeaux mag na Balla Gaye ci làmb. waaye Balla Gaye wane na jom ak fulla ak fayda pour prouvé romb ay gaayam ba daj ko kon ñoom ñaar ñëpp waa leen góor seen jaan wàcc na mu nekkoon combat bu neex bu intéressant waaye boo xoolee doole gi dafa féete woon tuuti ca Balla Gaye ndaxte moo gën a nekk gone moo moo moo moo gën a nekk ndaw waaye tamit expérience am ak jomam moo ko may euh, ba mu ba mu affronté ki nga xamante ne mooy Gris Bordeaux ba yàlla dogal waaw num lu mu fa dogal nii ba ndam leen ndam le am seeg lépp daal ñoom ñaan ñëpp waaw leen góor daal ay jàmbaar lañ ay jom lañ borom jom lañ daal waaw. kon yow daal su déggee cinquante cinquante nga def foofu. waaw cinquante cinquante laa fa def bien vrai que ndam am na waaye cinquante cinquante waaw. Eh, bala Gaye ak Gris Bordeaux noo ko gisee boobu combat. Balla dakay koy defaat ko nu mu ko defoon rek. da koy gars yi di wax un un yow nga naan deux zéro. deux zéro la koy def. waaw balaa ka dàq bëri moo ko dàq xeex. waaw. kilifa gi nuyu naa la. oui fay naa la. fekk la ci beegum géej gi moom ku la gis xam ne entraînement da nga ñëw pour féexlu. waaw ah, damaa ñëw pour féexlu moom dëgg la. waaw entraînement moom. ok ñu bëggoon nga may ñu tuuti ci combat yi nga xamante ni jot na fee taxaw ci ku mel ni diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye boobu combat noo ko gisee. waaw combat Gris Bordeaux moom. waaw nu ma ko gisee mooy Gris Bordeaux daanaka moom moo féete mag quoi waaw Balla Gaye moo moo gën a féete nekk ndaw gën a nekk en état quoi waaw moo tax it waaw combat boobu noonu finalement Balla Gaye moo ko mujjee gagné mais yombul quoi man moom si man Balla Gaye jël la xëy gagné quoi mais finalement combat bi dañ ko daf ko gagné par décision arbitrale quoi. waaw euh, ñoom ñaan dañoo war a bëriwaat mu nekk revanche. Hmm. kii di Papa Gaston tëgg làmb ji noo gisee boobu làmb yi nga xamante ni ñëwagul. ah damay jàpp ni day gën a yomb si Balla Gaye parce que diggante boo wax léegi da temps bi jàll na te Gris Bordeaux tamit diggante boo wax léegi mu ngi gën a jëm mag te Balla Gaye tamit jàpp naa ni mu ngi gën a nekk si forme quoi ndax moom. mais est dina yomb ak Gris Bordeaux ci defet yi mu jógee. waaw ah, Gris Bordeaux moom ak waa Fass nu mu leen gisee instant bi moom dinañ def seen kéntulaay kàttan mais pour man moom Balla Gaye pour man dépassé na Gris Bordeaux quoi waaw ah, pour man Balla Gaye dépassé na Gris Bordeaux. chef lay nuyu. ñu maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu ñëw maanaam saison bi tëj na mais mën nañu wax ne saison bi tëj na ndax boobaak léegi gis nañ làmb yi nga xamante ni moo fi jot a taxaw ci diggante Modou Lo Ama Baldé ah Balla Gaye Gris Bordeaux Reug ak Guy gi Tapha Tine Boy Niang ñu njëkkee ci Balla ak Gris Bordeaux noo gisee jooju làmb ak kan mooy favori. làmb jooju Balla mooy favori. Hmm. moo mën sax Balla Gaye bu mu mënoon ci làmb ji. waaw li ngay bu dina tey la tey tey tey ne Balla mooy daal. waaw. Hmm. waaw pare nañ de fépp. 100 ah. pour 100 ah, yaa ngi doog wax. Balla Gaye bu mu mënoon ci làmb ji. Ah. waaw. ñu ñëw Gris ak euh, Balla Gaye noo gisee combat <laughs> combat boobu combat bu neex la war a doon xam naa Balla Gaye ko war a dóor dóor yu métti. yaakaar ngi ne doo Gris Bordeaux ak Gris Bordeaux ni mënee xeex. ah lu mu mënee xeex ba si dara waaw Balla Gaye ko mën rek. Ah. waaw. kon daal Balla Gaye mooy daan. waaw. bu ñu ko yéenee noo gisee Balla Gaye wa jàkkaarloo kii nga xamante ni mooy Gris Bordeaux ba njëkkoon nañ bëre abi bi jox kii di victoire Balla Gaye noo gisee boobu revanche. comme nu ma daanee Modou Lo noonu laay daanee Gris Bordeaux barki yàlla. seen xel daal na de. barki yàlla. Euh. ndax sunu mbër bi dañoo tàmbal nam li ndax dañuy daanaat deux zéro yi deux zéro yi leer lañ koy daan. chef maa lay nuyu. Euh, ñu ngi sant bu baax a baax. ñu fekk la fii ci plage bi nga yow sa guitare. dëgg la dëgg la ñu ngi sant bu baax a baax. ñu bëggoon ñu bëggoon ñu bëggoon ñu waxtaanee ci làmb yi nga xamante ni moo jot a taxaw. daanaka saison bi tëj na mais mën na ne tijji na ndax boobaa ak léegi am na làmb yoo xamante ni taxaw na fi ku ci mel ni Gris Bordeaux ak Balla Gaye noo boobu combat. Euh, Gris Bordeaux ak Balla man gëm naa ne daal man Balla laay faral Mhm. waaw Balla mooy sama mbër waaw te gis naa ne Balla moom jamono ji moom gën na taxawaat beneen anam beneen anam la ñëwaatee fu mu toll nii daal kon Balla taxawul woon no jamono yi passé xam nga nit da ngay wax dëgg mhm. jamono yi passé amoon na ay quelques défaites yu mu amoon mhm. comprendre la mais boo gisee combat bu mu mujjee am ba daan ci ngay gisaat Balla ñëwaat na instant yi comme Balla Gaye bu njëkkoon daal kon yow daal su ma déggee Balla Gaye nga jox favori waaw moom laa jox parce que moo dëkk fii te fii laa dëkk te moom laa faral waaw Balla Gaye Gris Bordeaux noo gisee boobu combat. oh Balla Gaye da koy lekk. fu muy lekk. day lekk da koy lekk kañ da koy daan naaj Balla Gaye moo leen mën ñëpp. laabu ñëw du yomb de. non moo mën. foo teg loolu. ma xam ne Balla moo leen mën rek. Hmm. waaw. di Kipé maa ngi lay nuyu. waaw maa lay béyee sant bu baax ñu fekk la fii ci plage bi ngay doxantu. ok ok si bu leer dama ñëw pour entraîner. ñu bëggoon wax ci combinaison yi nga xamante ne moo fi taxaw ci combat diggante Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 noo gisee boobu làmb. non combat boobu wax ju jeex la combat boobu ku ku gis loolu sax xam ni Balla Gaye fu mu jàpp Gris Bordeaux làmb ji jeex. Ah, foo teg loolu ñoom ñaar bëri woon nañu làmb ji. waaw mais loolu dëgg la bëri woon nañ ñu am mas ñu mas gis nañ nu mu demee. Mhm. mais mais moment bi moom ku xool Balla xool Gris xam ne su ko Balla jàppee làmb ji jeex. Hmm. waaw loolu dafa leer. ba may teñ ne woon du sore. <laughs> teñ ne woon du sore. waaye tey waa saare. làmb ji. lamb jee lan wara wasaare lamb jee lan wara wasaare lamb jee lamb jee wasaare lan wasaare wasaare lan wasaare wasaare Mbëjee. Consombek ci ci consombek. hey yow. consombek hey hey. consombek. Chefal Paradise. consombek. hey hey consombek. hey yow. consombek hey hey. consombek hey yow. Wassare nekk benn télé. télé askan wi. di dox ci làmb ñoo ngi sensibiliser ci corona de leen takk masque yi di raxasu di sangu ba seet sensibilisation si wasaare tasaare kële Moulay Mass yaa ñu gën a xam fii ci cité douane. waaw Sarsarale. yee Sarsarale di woo jeunes yi si time is money. di remercier waaw wasaare gars nice di def affaire bu nice. comprendre ma la ñoo fekk ñu si taalibe def lu nice. fépp foo leen dem nag yàlla ngeen am jaamu yàlla ngeen am tawféex li ngeen di liggéey nag yàlla ngeen ci am ok maam Serap Fall bàyyi leen fépp yéen waaw am leen jàmm 111 ans sans ordonnance ngeen dund fépp ak tawféex. Serap Fall Paradise dund leen yaa mi bàyyi dégg